waaw suñu papa jaa ngi nii. na ko ñëpp jàppale. di ñaanal am expliqué lu mu jublu suñu borom jàppale ko ci. Mm-hmm. dimbale ko ci. Mm-hmm. waaw di lay wax ne ñun saa su ne ñun say doom ñun sa ginnaaw. naa la sama doom. ci incha allah daa la jàppale. incha allah lépp loo nekkati. taxal mm-hmm. ba ma jëkk ko. incha allah li ma la ko waxee maa lay ñaan borom mbooloo nga xam mhm. ne jox nañ la bopp mhm. nga jàppale ma ci lii ñu dëgmal ma élection présidentielle deux mille dix neuf pour ñu le président Macky Sall dès le premier tour en deux mille dix neuf incha allah incha allah incha allah yàlla sippel lu leer lu set wecc jëf ko amiin fekk